yaay booy ñu ngi lay nuyu député Koura Macky tey nga ñëw di wanaan sa mbëgte pour di dañuy au revoir président Macky Sall ba ñu yëg nga am. di proud ci sama président. I am so proud to Macky Sall amul lenn lu may rëccu ci fukki at ak ñaar yi mu def ci Sénégal kenn ku ci ne xam nga ni Macky Sall liggéey na Sénégal taxaw bi ñu taxaw ci naaj bi dañu koy gunge. demul fenn sénégalais fii la juddoo fii la yaroo fii la jàngee fii lañ koy gunge këram gi muy dem nii ñi koy ñaanal nag bu baax mook jabaram jooju yàlla fu ñu jëm yàlla na leen yiwu yàlla jublu yàlla na leen yàlla jàppale man moom dama feer ci ñoom dama feer ci ñoom amul kenn ku am ma xam ma taxawal la ci naaj nii ak honorable député yi ma taxawal ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal Diomaye bi nga xamante ne ni yàlla moom la jël teg ci loxoom dix huit millions habitants ma ne ko yaa ngi jàkkaarloog ñu iñaan ñu soxor ñu bari pexe yàlla na ko yàlla jàppale ñii di yuuxu Sonko nii tey Diomaye la ñu waroon a yuuxu mais di yaa ngi gis ni ñuy diviser encore Diomaye moo xew la tey moom la ñaanal yàlla na toogam bi jik Sénégal te jik ko te yàlla jàppale ko waaye ñun Macky la ñu am moom la ñu xam ku yor Sénégal nag dinañ la ñaanal. jaajëf jaajëf xam naa dañuy jëlaat beneen réaction sànq ñu ngi gis ki nga xam ne moom mooy la député Koura euh, Macky mu am liggéey bu am solo def na ko ci à bi nekk fi muy wane affaire gën a fësal li nga xam ne moom mooy mbégteem di gën a am fëddal yéenam ki la président Macky Sall